asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu téléspectateurs yi ñuy seetaan ci la chaîne des valeurs Mourchid TV dal leen ak jàmm internet yi ñuy topp itam fu ne ci àdduna bi ci Ken Bougoul TV fu waay mën a nekk rekk fekk naa la fa tàlla la tele samay yoxo di la ñaanal jàmm ma dellu siwaat beneen yoon nañu ko daan defee di janoo ak domi borom bammel bi ken bëggul bu cheikh Mouhamadinil mustafa si al Murshid. tay nak mu am tomb yu am solo yu ñi fasiyene waxtane serigne sëriñ bi laata ma ci xoss rek nuy na la nga nuyok askan wi nuy setan serigne bi ma ngi len nuyu di la ziarra di la ñaanal ngonu jàmm ci kàttanu suma borom jerejeuf jerejeuf may itam ma ngi lay ñaanal jàmm ju sax dak waye serigne bi Tay di nga ma baalati ma fàttaliku tuuti ndax kat fàttali dina tax ki dabe mën a xam li nga weesu jàngat bi nag mënul génn paj mi rawatina nag bés bi nga xam ne ci ngay sàkk pexe muy bésu dimanche mbokk yi nuy kër gi ngeen di seen ci histoire turu bëggul bu Moustapha ci wi yëngatu te modi di gitawat ak njàqare ci couloir bi ci le patient yi dan rang dimanche bu ne ngir janok domi borom bammel bi ken bëggul bu serigne Moustapha si daw ñu bari lol donte ni xam-xam baangi fi won tour wi wëragul aduna lolou ci atum 2019 la won bi nit ñi tambalé bari nak tour wi tambalé siw nit ñi di waxtané ay résultats booba nak patient yeengi tambali di bari ci le déplacer wo ñew ci kër gi ngeen di seen wul dara autoroute à péage bi wayé ba léegi génnul digënté tablo tiwawan ak lamsar wayé taxul ba légui kër gi yaatu ci walu espace ba taxna nit ñi ci fajaruk dimanche bi dañuy fess del ci mi kenn ku ci nekk yaa nek nekk kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy génn ba nga janook mom nga dis ko sa yité ndax yaakar ci katanu sunu borom waye mbokk yi ni setan ken bëggul bu serigne mustapha si ci njambaram ak don gi mu don visionnaire li ma len wax mi ngi ci 2019 ak 2020 ci 2021 bi ci la kenn bëggul bu sëriñ mu Sy tabax résidence bu rëy lool fii ci diggu tabla Tiwaawan tudde ko résidence Seydi Mouhamadinil mu Sy salle bu njëkk bu kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy doon recevoir ay patients mi ngi ko tuddee saalu yaay Fatima salle boobu mi ngi nekkoon ci deuxième étage paj mi di dox turu kenn bëggul bu sëriñ mu Sy di gëna law ci biir réew mi ak biti réew nit ñi itam di gëna min tablot tablo di dalal ay gan yu jóge fu ne ci biir réew mi ak biti réew ngir yalla ak jëm ji di kenn gul bu serigne mustapha si lolu sax bokku na ci li sababon jambar ji domi borom bammel bi wax ay njaboti bopam ni len nu samdi ci ngon bu ne nañu mabalel mbeddi tablot yi ndeysaan ngir yàlla ak fonk patient ya yi nga xam ni dañu ko yaakaar ci kàttanu sunu borom waaye nga bàyyi xel ni bés bi kenn bëggul bu sëriñ mustapha Sy di faj mësul soppeeku dimanche rek la doon jamonoy dox nag ba ci at mi ñu nekk di 2023 turu kenn bëggul bu sëriñ mustapha law ba wër àdduna nit ñu ñuul ñi ak ñu weex ñi ku ci nek di jëf jëf ji wané ni nun ñoo la gëna fonku doomi borom bammel bi kenn bëggul bu serigne mustapha si ganaw bi nak salu yaay Fatima bi nga xamni dafa nekkon ci deuxième étage kenn bëggul bu Serigne Moustapha si demande ni nañu ko wàccee ci suuf ngir yàlla ak yenn nat ci ay màggat wala malaat yu nga xam ni seen dox gaawul yéggi du yomb ci la ñu wàccee saalu yaay Fatima ci suuf ngir mu mën a recevoir gan ñi ci anam yu mucc ay ay weer rek lañu ci tek ken bëggul bu sëriñ mustapha si 3e ak 4e étage gogu nak daf ci def ay appartement yu muccu ayib ndax dafa wax ni gannaaw aduna dañu ma soxla te jotam mayetuko ko saasu ne muy yek ci avion ka kon fexé ba aduna di ma fekk ci fi ci tabla tiwaawan moo yomb mu fexé ba fu kilifa mën a jóge ci àdduna bi boo agsee Sénégal doo jël hôtel fii ci résidence su Cheikh Mouhamadinil Moustapha si ci ngay dal te doo soxla lenn ba wuti ko fenn ndax lépp a ngi ci biir mu ngoog mbokk yi jàngat bi nag moo di ci lu matul juróomi at ki fexe ba bi daan ronu miir yi ngir kerlu tey mu wutal la ay apartement meublé yu nu climatisé ànd ak internet bu dul dog ca dëgg-dëgg jële na faj mi ci benn indi ko ci téeméer kon nag sëriñ bi yal na yàlla gën la dëgëral gën la sàmm ba fi nga war a eggale sa mission mu bañ am benn ndokk yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def li am njàngat la rek bu don def ngir wane fi nga jëlee faj ci diwaanu Afrique ak fi nga ko indi te nu wax ni fa nga koy yóbbu war nañu ko gëm allah kon nag noonu lay rek dem ci waxtaanu tey bi waxtaanu tey bi nag dañu koy jagleel dimanche muy bes bi ngay sàkk sëriñ bi dimanche ak nit ñi ni ñuy bare kenn ku ci nekk ak sa soxla boo xëyee dimanche sa préparation wala bok la ko jiitu sax ci diggante ajuma ak samedi ndax mën nga ñu wax préparation dimanche boobu le ndaka lay demee waa bala maa door may dellu di remercier waat di sant passion yi nga xam ay at limay wax ne kenn rek dañu wolu lo leen wax ñu ne demal setti kenn bëggul te lo bind timit ñu fay ko tek ci taabal ci yalla mo yor fay yalla na leen yàlla fay kon nak tay mbollem passant yu jige walo yëpp ma ngi ñu di walo la wax de ñi jugee ndar yàlla na yàlla fay leen yiw Ross Béthio yàlla na yàlla leen yiw Foundiougne yàlla na yàlla fay leen yiw ba Ziguinchor yàlla na yàlla fay leen yiw Gossas Diourbel yàlla na yàlla fay leen yiw Thiès Tivaouane Mboro Daaru Xuddus Fast Boy, Jogo, mention spesial, Mewan, Pur, Kebemer, Ndande Yalna Yalla na yàlla Jolof Tamba Wuro Bakel Reniru, gambi muritani maso spesial, wala mana ngi nduy sama mbok médecin nek muritani yep ñom xamnañ man xamnañ soo ko wàcc si ndakaaru nag Kër Masaar Géejawaay Yëmbal benn baraak la in shakartum la azidannakum kulim juum waaye yéen ñëpp yàlla na yàlla fay leen ndax nit ku ko topp ay at waxe kese ba wu la fa de kon bar barñi yeen ak tëngeej fàttewuma leen damay bañ tudd tur yi waaye maata yi sax fàttewuma leen marché Thiaroye marché HLM Tilène Petersen yenn sëriñ yàlla rek ko man mu tax yéen ñëpp yàlla na yàlla fay leen yiw kon na si door nga xam nga dimanche yàlla dafa sàkk bés yi mu nekk juróom-ñaari bés nit ku nekk am nga ci bés yi boo doo xam ne mooy sa bés bi nga moom fexeel ba bul jël bésu jàmbur xam nga dama lay faral di firil benn aaya mais su ma koy firi wu ma ko pour shariatu muhammadiya bi mais dama ko firi pour mystique bi moo tax moo de wal xamaru xadar naahu manazil la miim la nuun lif ko dog xata aadakal xurjumil xadim laa zamzu yanbaxi laha laagi li mu fi uti lama rek laa zamzu yanbaxi laha an tudrikal xamar wal xamaru bi ñëwaat wala laylu saabiqu nahaar wa kullu na fii falakin yasbahun weer wi jant bi ku nekk wormaal nga sa ayug morom ba jant sañul génn guddi wala dina génn guddi waxtoo la lay génn weer bi wormaal jant noonu la amee ci juróom-ñaari bés yi waaye bés yi du juróom-ñaar ah huit dégg na fu ñu nekk ci lañ bokk di bés yi du juróom-ñaari bés donc boo un deux trois quatre cinq six sept huit dégg na fu ñu nekk ci bés yi lañ bokk di. pour nga xam fan la nekk ñoom faaw nga dem ci xadar naaxul banaasil bi boo connecté woo ci biir xaaf gi rek xam xamal la fi mu nekk nga dellu si heure yi xam heure bi ngay jóg ak heure bi nga dul jóg noonu lay amee semaine yi nga tànn ci bés boo xam ne benn bés lay nekk nga war cee sàkk pexe mooy man benn fan lay faj mooy dimanche benn fan lay tawaslu suma kanam borom muy dimanche bu dul bés boobu noonu du ma faj sama xel mooy sama xarit ak samay téere ak sama temps bref donc ñii ñëw dimanche nag condition yi tax nit mën a ñëw fii dimanche yomb na yombul mais loo ma ci laaj rek ma tontu ci waaye ci kàttanu sama borom bu yow màggee rek dellu fatu géej nag. jërëjëf loolu yaakaar naa ni leer na yéen ñi ñuy seetaan waaye sëriñ bi su ma ñëwee ci dimanche bi fajar jot mbedd mi fees dell nit ñi jóge ci ay gox yu wuute kenn ku ci nekk ak jafe-jafe bi nga indi préparation boobu ak yëg-yëg boobu lan lay doon. xam nga waccay bi duñu duñu ci mbedd mi wàccaay mooy encendaay bi nga tey ci ay dossier té ñom ku nekk wul bokk ak garab bi ngi koy jafanal ku nekk jat bi ngi koy defal du bokk ak jatu moromam cuuraay yi ngay kombo duñ bokk ay cuuraay ndax kenn ku nekk bokk na sa morom direct bi nga yor donc ñi def consultation en distance mooy ñi nga xam ne jaar nañ consultation te déggante wuñ ak man agsi ñi ñëw ci semaine bi consultation gis ma agsi nañ ñi am rendez-vous agsi agsi nañ léegi dossiers yëpp boo ko dajalee ba noppi ci diggante lundi mardi mercredi jeudi vendredi soir damay téye document yëpp téye ko sama loxo. samedi soir ma motali li des donc vendredi yimay tej moy li ëpp diaspora lay doon ndax ñom seen document jeudi la koy démarrer vendredi ma collecter collecté liggéey bi ak dog ak lepp ngi paré ma démarrer waale ci guddi bobu non touti dugg samedi bi samedi damay xey motali suma bu jógee dem assister salle bi ñaala man foar la jëgë def man dama def foar exposé stand du ben du ñaar du ñet ñent du ne xamna fi wara tégué donc lima bëgg wax moy jang na décoration sal bu ne man la fi la la fi ni la fi ni la fi ni la samedi paré nak ma dem fatati suma démé ba minuit jot duma ma liggéey xam boobu jël sama bal dur basket ba sama yaram tàng ndax sama yii laay soxla mu bàyyi libéré wu parce que dimanche ñi ngay suur il faut nga am rapidité bu gaaw loxo yi faaw ñu oyof bu ma dóoree ba tàng dem ci machine yi defaat benn série 30 minutes wàcc foofu demaat corde benn 30 minutes wàccaat foofu def li may def dem ci kaw terrasse bi nag jël téléphone yëpp teg tiim géej gi rek jàkkaarloo moom du def dara léegi minuit une heure deux heures pile ma pare ci lépp nag su ma paree moment boobu damay oyof tey ma ñëw dugg bureau xool dossier yi ma war a régler régler leen wàcc beneen salle may defee turu yàlla yi régler yenn documents yi des sarax yi des ma taal sama oto ci guddi gi génn dem defi ko ci àll bi ñu bisi wat ah mais su ma yeewoo nag ba war a préparer faj diggante boobu laay sonn trop ndax boobu psychologiquement dama nekkati sama xol du neex xaw a jaxasoo ndax xamutuma fu may nekk ndax day fekk ñi kër ga ñi ca àll géej gi ñëpp installé wu nañ toog ta ñoom ñëpp benn patron la ñu am te moom li mu wax lay def te moom mi day mel ni président bu yor ay ministère am rek ba pare biir ministère yi conflit juddu seen biir conflit non l'invisible yi day am conflit conflit bu dox seen diggante maanaam entre góor ñi ak jigéen ñi ñu jubóo ndax day am fiiraange di dox seen diggante ñii di laaj fii ñii di laaj fii moom mu war a arbitrer mbir yi pare jël rapport bi jébbal ma moment yow du ma dégg ci nit wax damay tàng jër di soufflé su ma yeewoo def yi ma war a def ba jël sama kurus def yi may def def la xadis ci yonent bi direct jang lim bima jang ci asbul bahri jang lim bima jang ci asbul mukhni jang lim bima jang ci salatu fatiha jang lim bima jang ci jahrul kamal dem fatu ji leg nak toko wacc sal bi ci souf contrôlé wu li doon liggey ndax lima bëgg ak lima len leen def nañ ko waawu wala déet li am fay man la leen ko dindi li ñen ko dindi soo paree soo ko joxe ordre nañu rappel donc bu ñu rappelé ba noppi dina am ndaw yu ñëw jël ay fooy di surveiller ko ñaamul fooy toog xaar fi lañ war a yóbbu ñu yóbbu leen fa ba ma yëg ne pare nañ ma may leen seen temps dans trente minutes man ma soog a wàcc ah, bu ma wàccee Nadar ada Imam mooy acte bi njëkk li ma war a njëkk a def mooy tour parfum bom toya tooy xep ci salon bi pour ñi kemana ak man ñoom ñu dal moo paree bayi leen foofu ñoom dem def samay sarax mau ma defee sarax ba noppi jël jàmbaar ju mag bi yëkëti tanké ñu fompal mako ba mu set mo dugg dox ak mom ci biir kër gi su ma paree ko nag mais du dimanche yëpp lay dox ci biir kër gi bu malat malat yu am fièvre xel yi bëré ba ma xamné ne tit ci poids bi ma gaddu dama koy jël nako abal ma jour tay ma ko jël ko mu dugg ci biir kër gi pour mom mu tinuma ci poids bi da nga yéne moment mu daanu wala mu teud xalanku yagru yàgg donc ñi may moom lay encaissé parce que man ak moom ay complice lañ sama xarit la nag <laughs> dama ko sopp de yii aw ma ci moom sango bugguma lu ko laal waxaa mooy tooj Moussa Ndiaye ne ko yàlla mi bind xam ne ginnaaw ñaari ahmad yi fas yi moom moo la gënal mënoo ma ku nekk sañ nga ko di mais damaa xam fu mu toll ci man dama ko sopp bugguma lu ko laal ndax damaa xam li muy ci poids non vainqueur pire la wala gis nga su ma ko tiimee di ko raay parfois du ma def jàpp damay sëgg rek wax li may wax moom dem sama yoon ndax man yàlla dogal naa xam naa xam-xamu fas ndax bind naa ci téere fas bu yaayam dee xam naa ko bu yaayam deewul xam na ko bu buy jooy am na xam naa li muy jooy waaye mi li ko naqari xam naa li ko naqari bu tawatee xam naa li koy métti ma ñëwee ne ko connecté wul rek bàkk ko waaw dafa moom il il yi ne ko amal jom nag mun ma dinaa ko gérer maanaam turu meew waxaa ngi ci suuf génn ñëw jël fourne bi nag foofu la sama faj di commencé maanaam su ma jëlee fourne bi ba def ci xal dem aller retour maanaam mboolem liñ toog ci saal bi lii malaat yëpp jàngoro yi nga am yëpp dañ ma koy wax may déggati foofu lay redémarrer connexion yi yàlla mboolem loo am ci jàngoro lépp dañuy jug di ma yëg ni may jàkkaarloo yow nii laay tiimee loo koy di xool ñi muy super les caméras surveillants yi lay xolé ci biir yaramu nit yalla dima sarax may dégg li ma wara dégg jëm wax dama la rappel di lifantu rek katnu suma borom ah. <laughs> sutura yalla rek hmm? sutura yalla rek bu yow magge delu geej jërëjëf mu ngok kon nak téléspectateur ak internaute yi ñuy suivre xana rek ma fatali len ni bes yi nga xamni ci la kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy di def consultation mardi la mercredi jeudi ak samdi 11h ci suba ba midi ngir am ci yeneen i leeral mën ngeen woote ci numéro yooyu ngeen di seen di ngeen jot ndawi kenn bëggul yi ñu teg leen ci yoon yu leer incha allah sëriñ bi man bésu dimanche euh, damay wax ni sax dafa neex a fekke léeg lekk toog di seetaan sax euh, dafay nekk benn spectacle bu nga xam ni mbir mi euh, daf lay xaw a yéem. ngir yalla ak ni ci yoon ak organisation bu ci ayib bi mais euh, dañu seetlu ni nit ñi nga doon ci cuuraay yi nga doon sour yañ ko doon defee ci biir salle bi euh, tay ñu gis ni da ko génnee ndax mën nañu xam lu waral nga génne ko ci mbedd mi. mbir ñoo xajatu ci biir kër gi rek ñu ko ci biti dama bu yow magge delu léegi su bitti bi man ñibbi Jolof comme xajul ci biir ma génn ko ci bitti ndax am na loo xam ne parfois soo koy def dafay laaj parfois nga nga yëg ko di ko def donc ko tax man moment bu nekk ñi ma ànd ak li ñu ma wax rek laay def bu ma dix minutes dix minutes laa lay jox bu na ma cinq minutes cinq minutes laa lay jox donc li tax na ñoom ñu génn bagage ci biti ñoom seen biir wax naa la dañu am conflit te conflit parfois li koy waral mooy da ci am njaboot yoo xam ne dañuy wax ne pourquoi pas ñi yor feebar te mënuñu leen déplacé wu duñ ñëw dimanche ñoom d'accorduñ ci loolu donc ñoom dañuy def assemblée général seen biir maanaam waxtaan seen biir. ci fan lañu war a jëlee faj bi ak fan laa ko war a yóbbuwaat xam nga boo xoolee ba mu nekk ci kaw mag bi am tànk yi métti bu ñuy du yëg donc ñoom ñu def seen ensemble général wax ne d'accord tul faj bi nekk ci kaw dafa war a wàcc ndax ñu yor tawat wala métti te mënuñoo yëg dañoo bokk ci faj bi ñu ne ma kon daanal léegi ci suuf yëpp yëpp vide nga def ko saal ma def loolu te comme parfois da nga gis nit koo xam ne day daanu crise wala mu yor feebaru xel donc doo ko mën a indi ci biir salle bi moom mu toog ndax ci biir nit ñi am na ñoo xam ne ñoom it seen yaram dafa seexlu donc ñaar ñooñu il faut nga séparer leen mu waral parce que buñ la joxee cuuraay bi boo ko suuroo boo paree da ngay da ngay gëlëm doo gisati da nga wàccu di nga gàll da def lu ne donc ki nekk ci moment yooyu noonu du xamatul fu mu nekk. mën a daanu ci kaw taabul yàq ko mën a daanu gaañ nit léegi ñoom ñu defaat ensemble général wax ne d'accordutul patient yooyu noonu ñu leen suure ci biir kër gi dañoo war a génn ci mbedd mi ndax ñoom ñi ñëw transhumé di assister faj bi muy l'invisible yi ñoom xajatul xajatul ci biir kër gi kër gi dafa xat ñoom donc nañ leen génn ci mbedd mi ndax ñoom ñi am demi flexion bu gaaw moo def parfois ma dem ca rond point ba xale ba yoon bi tuura leen pour ñu dal nee na man maa ngi doxal dala leen seen xel ndax ñoom it ñi ngi jonguru taxaw temm di xaar risque yi war a ñëw wàcc ci sama kaw pour ñu affronter loolu ñoom it ah ñi ne ki yor feebaru xel wala ki mënul dox wala ki nga xam ne doxam gaawut dafa war a bokk ci faj bi ndax ñépp ay malade lañ kon génn lañ ci biti ñoom nga suure lañ ci biti fala faj bi gën a gaawe ndax boobu yaa ngi jege samp yi loolu lañ jox ñu naan dal ñu kon lii moo waral mbir bi génn ci biti te yàlla mi bind xam na ne fajaguma waaye bu yeewu màggee dellu géej xawma nak bu yow maté delu fatuna way bo ci wax rek bés dina mu am inshallah allah baagi ma doxal mu ngok kon nak téléspectateur yi ñuy seetaan gis ngeen ni tay ñi ngi waxtaan ci dimanche bi nga xamni ci la kenn bëggul bu serigne Moustapha ci di sak pexé mbolo mu bari lol joggé ci gox yu wuté ci réew mi ak ci biti réew kenn ku ci nek kenn bëggul bu sëriñ Moustapha jëflanté ak yow ci anam bi la fi indi ba nga am ci satisfaction totale masha allah loolu yombul mo waral saasu ne ñu diko fessel ngir aduna man ci tek sen beut waxna ni yow mi nga xamni da nga soxla kenn bu serigne mustapha si ligeyam set mo ci jitu bes yam ko wutal modi mardi mercredi jeudi ak samedi 11h ci suba ba midi mu ngok serigne bi gis nañu ni semaine bi dina ci am ñu nga xamni consultation à distance la def wala sax ñanga ci yeneeni rew ñoñu ndaka ngay ak ñom ci dimanche bi yeneen rendez-vous privé yeeg urgence yeeg en distance yeeg ñëpp benn fan laa leen dajale man dama am programme lundi bésu yonent bi la du ci def dara bu dul jàng ak gëstu liif yeeg tikkanti yeeg lamara yi ci loolu lay nekk mais du laal gàncax mardi consultation laay def 9h ba midi mais dama ko dindi léegi def une heure de temps temps bi mayutuma ko su ma paree mardi am na yeneen programme dama wuti garab wala ma dem def sarax mercredi une heure de temps su ma paree damay dem defi leneen jeudi une heure de temps waxtu suma ma paree damay dem defi leneen vendredi amul samedi. 9 11h ba midi suma paré soko démarré sama programme bop yeen heure yi des li ma sama xel damay dem noppalu ko li ma dem dafi sport ma dem dafi sport parce que fat bi ñuy liggéey ni sa waay mun amul physique bu doy doko ko def boo manam maanaam njaflax mënoo ko def te yi yëpp faaw nga dajale lu nekk nak faaw nga jox ko heureum moo aduna lepp dañ ko organiser wu xam nga parfois nga dégg ben patient manoko sa rendez-vous jeex rek mu joy man wa lu xew nga ne mo bëgguma rendez-vous jeex man dina jeex nak parfois patient ñew nga téye document bi ne ko foo jugee na rew dëkk sangam mu ne way est-ce que man nga ma bal nga wax ma ben mbir rek man wa lu xew mun ma yalla xam ni nga bo xasse dugg ci dong doy na ci fajj jëru jox nit ñi gar mën nga dugg rek ñaan nit ñi yewé ko ma ko gis nga li tax may insister ci ni am na ño xam da na and ak malaat ñew ci kër gi ci salle bi la la leen laa leen di fajee te du jox garab xana lool ñu bari xamu ñu ko parce que parfois yi may ak ciura bi may tal aller retour lu mu ci yow ci jangoro da koy bu mu dañ manam bu do nga yow 10 day seppi 5 pour cent ko yow mi ànd ak patient wa léegi yow lol boko xagne sa bop fo jëm ha motax ñi ñepp nak benn fan bi dimanche lay faj wa yalla dogal na sarax na ma ci ñom ñepp kenn du ci ag échec wala bu doon junni ñu naan ñaar ñoo ci effect mais du ko weesu ndax xamna heure yi xamna waxtu yi ci barkeb Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha bu yow màggee rek wat jërëjëf yeen téléspectateur yi ñuy sétane ñi ngi leen di jaajeufal ak internet yi ñuy top ci kenn buggul TV waxtaanu tay bi gannaaw bi ñu defee tuuti cim njàngat ci kenn buggul bu Serigne Moustapha si ni mu tàmbalee faj ci dimanche yi ba fi mu ko indi donte ni xajul ci benn émission waaye rek jël nañ ci tuuti ngir mën a def illustration yow mi nga xam ni da nga bëgg a def consultation te bés yi ko kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy wutal arrangé wu la mën nga def consultation direct Serigne bi dina la defal consultation te doo bouger fa nga nekk mën nga woote ci numéro yooyu le wala nga bàyyi message ci numéro urgence bi ci lu matul fukki minute ken beugul bu serigne mustapha si mën na la defal consultation eh, té la ngay joxé 63900 euh, rek la mo xam nga ne ci réew mi wala nga nek biti réew mu ngok serigne bi day temps bi dem na lu bare bare sax waye rek jar nako ko rek ma toftal ci actualité ñu yëkëti jotaay bi actualité bi dama koy dello ci Ousmane Sonko gis nañu ci altiné bi blocus bi nga xamni amon na fofu ci buntu kërëm dindi nañu ko legi nit ñaa ngay jàll na mu dafa melni ni bañ koy def xamuñu won deug deug lu ko sabab biñu koy dindi itam waxuñu lu ko sabab en tout cas dal deñ na noo ko ñoo ko fa defal ñoo dindi du ala in ñàkkul yàlla moom amna na yu mi barkel rek bu ngeen bëggee jàmm def leen ko ni ko yàlla def ngeen noppal seen bopp ñëpp am jàmm gannaaw boobu dañ na encore une bonne fois ñu ngi koy ñaan président Sall yàlla na yàlla gën koo may ba mu xam borom xel yu sell yi ko wër ndax loolu mooy bii bi ci moom ndax ñëpp ko ñaanal mu am sorti bu rafet kon nag ñu koy ñaanal encore une bonne fois ñi ci prisonniers yi ngalla na ci tinu peuple bi ndax ay doomu jaamoon rek a fa nekk ay sang rek fa nekk ay garmi rek a fa nekk malgré nag nit duñ juum du ñàkk ñu ngi koy ñaan mu dimbale peuple bi soutenir leen ci seen famille yi nekk ci biir prisonniers yi peuple bi ñoo koy ñaan nañu dimbale rek ci loolu te yàlla tax mu libéré libéré otage politiciens yi te yalla dongu tax loolu dañ ko koy ñaan en tant que say doomu rew da gis na ay coppite mi ngi am da na la ko acceptel ta lama daan yag wax ne manam, delu ginaaw du ragal ci grandeur la bok, ndax njit day reculer man amna président bu ma sopp lool muy président Rwanda dama ko bëgg ndax dama xam fi mu jëlee Rwanda ak fi mu ko yóbbu yàggul Ibrahim Traoré bu Burkina Faso mais ku ne kenn d'accord ci jot nguur ak coup d'état kenn d'accord ko mais ci weer yi ci ginnaaw demal 24 heures pour ne milliardaire yi doon remboursé waat seen xaalis yi diir bu ndaw mu enquêté 200 et quelques milliards Asimu bu Mali noonu la mel. xoolal soxna président Rwanda bi di nga góor bu dëgëree rek jigéen a ne ci côté wala mu ma def ko sama compte STT am ñu may laaj kii kan la ma ne man dama topp li xew ci monde bi di li ma yore ci bëriwul dama koy chiffrer donc kon ñu koy ñaan peuple bi bañuñu ko déedéet ñi ko wër la peuple bi d'accordul ak ñoom. mais peuple amuñu moom benn xaar ma yàlla parce que jàppale na nit dana juum def na ay njuum te ñëpp d'accord nañ ko mais sénégalais seen xol du jàpp donc na dimbale ñu des ci prisonniers yi mu libéré ñëpp élection organiser ay élection yu libre Seydina Ousmane ak Khalifa Sall ak Karim Wade ak Pire rek ñëpp dem élection Sénégalais ñooy tànn xool ki leen doy ñu tànn leen wala loolu leerul kon nag bu yow màggee dellu géej. mu ngoog kon nag téléspectateurs yi nuy seetaan dañu war a wax jeexul waaye waxtu wa jeex na sëriñ bi nga tàggoog askan wi ba beneen. bàkk tey sargal Mawlaaya a Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha ku ma am nag yàlla na raw wa maa saalika ala laahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa moo am rek benn mbokk bu ma bëgg tudd cantam. ndax mënoon nañu xaar ba suba sax bu ñuy tudd cant yi wax ko waaye itam dafay rafet ma waxal ko sama bopp muy kenn bëggul bu sëriñ Moustapha waaw ah tabaarakallaahu bi gàmmu gi di ñëw indi na fi fanweeri nag ku ne xam na ne loolu tuutiwul boole ko juróomi gëléem fa tabaarakallaahu yi dara des diggante oignon pomme de terre ay huile lu ne jënd na ko indi na ko fa tabaarakallaahu booleeg yi mu ko booleel ba noppi ni xeeb naa ko ma defe ni kon nag dana rafet pour ñu tudd ko ba nit ñi xam ni boobu coono daj na ko ci gàmmu gi ñu di ko gërëm di ko sant surtout ci turu waa waañ wi ndax waa waañ wi ku leen indil loolu yaakaar naa fa tabarakallah di nga leen gën a jàppale bu baax a baax kon nag kenn boobul yóbbante baa ngoog fa tabaarakallah